jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mbokk yi xanaa di wax rek baatub inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi tey bu ngeen gisee teewaay bi fii ñoo ngi fii ci parcelle unité set ndax tey monde làmb monde de la ñoom ñoo nekk ci nakar ak tiis ndax Moussa jum nekkoon un très grand champion nekkoon daanan waaye nag yorul woon jikkoy mbër doxew ko woon waxew ko woon nit ku yaru woon nit ku dal nit ku fonk doomu aadama nit ku respecté nit nit ku yaru ba àddana gépp xam ko ax lu làmb ñëpp ko doon wax muy amateur muy supporter muy ñi nga xamante ni ñoo ŋànk làmb ñëpp waaye nag bii bés Médoune bés la boo xamante ni bés bu jara bàyyi xel la ndax bés la boo xamante ni du jaas ci kenn ndax xalaxal mawta wal xayaata dunia ndax yàlla sunu borom kulu si zaay xatil mawti la wax bakkan bu mos dund di nga mos dee kon bés bi lu jar a bàyyi xel la ba lu waay di def mbaa nga koy wax war nga ko xool ndax Serigne Touba nee na kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def sa bopp nga ko def. dañuy dugg ci biir ñu xool mbokk gi xool famille bi xool ay am di jàmm xool ay jege naa leen ñu laaj leen ci seen diggante ak Moussa Dioum Mbirun Diouf. waaw noonu mu ma doon defal nag. waaw noonu moo daan defal nag. Mm. moo tax man wi ko sant di ko gërëm. Mm. Ah, la mu am fii nag. <coughs> bari na bari kilifa gu nelewtu amu ko ndax sëñ Cheikh Seye taaw sëñ Chouaïbou dafa fab euh, ay ñaanam yoo xamante ne ñaan yi. Mm-hmm. sëñ Tuubaa yooyu sëñ Tuubaa la. Mm-hmm. mu jox ko doom ji sëñ am sa sëñ am sa ñëw foofa dal di koy kii. dal di ñëw foofa indi ko. kon nag loolu dinaa leen ko yëgal. ndax moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. li mu am tey ah, nit nekk nit jóge na fi te mënoo am loolu. kon nag maa ngi man dama koy sant bu ca kanamu yàlla. metti na nag. métti na. waaw nga yem foofu baax nga yem. lu ma mës bañ bëgguta loola. kon nag du ma mën lu mooy seeral leen ko yéen ñi ngeen xam ne yéen a fi nekk man nag ab te te fab bu ne ne tey ma yar la mënuma loolu li ma njabooti daal dinaa ci def sama kem kattan. ndax bu ma bu ma nee dinaa tey jii dinaa yar doomi jàmbur may wax lu ma xamut. ñi ma dëkkat daal nga xam ne sama njaboot lañu saa bu ñu xëyee dinaa leen wax ne leen def bàyyi leen lii def leen lii waaye nag leneen mënuma cee dugg. affaire bu ngeen bu ngeen ma mayoon sax dinaa leen wax ne leen man affaire lam du fen ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas fen nag damay wax li nekk ci man ndax man li ma xam mooy liggéey. mais affaire ay dem di bëre loolu wax dëgg yàlla du sama affaire du sama affaire wax dëgg yàlla waaw waaw kon baax loolu lépp loolu lépp ci mbégte la rek il y a pas de problème du dëgg moom ni mu yare doomam message bi muy lancé nit ñi daal euh, mooy xale daal na góorgóorlu ba am ngërëmu waajur ngërëm lii mu saam na fexe képp xale bu fi toog nga fexe am ko parce que àddina dafa gàtt on se sait ndax fi mu ne ñun ñu fi daje ñëpp xam nga kan mooy ciy topp ci Moussa yal na yeex waaw li dëgg mooy xale na nangoo liggéey na fonk waajuram fonk dëkkandoo bi comme ni ma la ko waxee sàng rek loolu moo am solo waaw nangoo liggéey amub taalibe respecter sa bopp loolu c'est l'essentiel boobu message daal la muy lancer xale yi moom tamit nekk koo xamante ni wëllëre la ci Moussa Dioum te yaakaar naa ni lu mu ñu mës mën a wax ci Moussa Dioum bari na maa ngi leen nuyu papa. Baye Balla ñu ngi lay fay di la jaajëfal nuyu Sénégal yëpp. di leen ko jaale Moussa Dioum di ko jaale Sénégal Ndakaaru ak rawatina Parcelles Assainies di ko jaale ay mbokkam di ko ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana fa mu gën yal na ko gënal fu mu jóge loolu lañ koy ñaanal. mais mën nga nu wax kan mooy Moussa Dioum. waaw Moussa Dioum li ñëpp wax rek boo teewoon baas bi di wax ñëpp borom baax la nit ku baax la nit ku bëri jàmm la fu mu toog kenn du ñëpp ñëpp ay ree comprendre nit ku baax la ku xewle tamit bu ko yëgee di gis mu ñëw assister kon nit ku baax la quoi. mais moom tawatam kenn yëgu ko woon affaire bi dafa bette dafa feebaroon. waaw man non yëgu ma ko nag comme ni nga ko yëgee rek laa ko yëg man li ma mooy ah, gis nañ ko rek ci gars tàggee ko ci euh, démb QG comme ñëpp ni nga ko yëgee ko yëgee quoi waaw ah, yëgu moon feebaram quoi. Ah, lan ngay wax ahlu làmb. waaw di leen santaar rek tey boo ñu yaa ngi gis fi euh, di fi gis ñëpp promoteur ak ménager ak amateur koo gëj a gis sax boo ñëwee tey si bâche di nga gis mu toog xam ne monde laam ñoom ñëpp benn lañ ko wax dëgg yàlla. waaw seen taxawaay rafet na lool lool lool. est-ce que bés bii bés bu mel nii nga xamante ni c'est pas la première fois nga koy gis ci axlu làmb jotul sëkk ngir ñu jàppante muy mbër muy promoteur muy ku mu mën a doon ba ci chaîne jeu de lutte bi jàppante te ànd te yàlla tax te xam ne bés bii bés bu dul jaas la ci kenn. waa xam nga mbooloo moom buy ànd moom tout le temps rek dina am ñu gisee nii ak ñu gisee nii waaye li am solo mooy saa yu farata jotee rek dañuy ñëpp ànd. loolu rafet na lool waaye ñu gën a defaraat toogaay toogaay rek la ñuy wax rek ñu gën a jekkalaat toogaay gën a jàppante rek xam ne àdduna du dara tey jii ku ne Moussa Dioum tey dem na ci ak âge mu demee na ah 40 ans 42 ans doy na waar kon na defaraat toogaay rek. waaw. ah Moussa kon euh, sa sa sa sa sa morom la. Moussa ñoo maase. ñu naan def quatre-vingt lañ jur ñoo maase. bu ñuy xamante ay treize ans lañ am douze ans treize ans. boobu ñu ngi def ay CM2 xale xale ndaw nekk ci géeg gi di foo nag. waaw yàgg na musaa Dioum bu dee à part magu bi parcelle moom laa njëkk xam ko mbër fii ci parcelle ko ki fooy bëre wax dëgg yàlla waaw. kon ci âge boobu ngeen ànd yéen ñaar man dama yaakaaroon ni ngeen commencé ànd yaa naa làmb leen boole. non boobu ñun ay élèves lañu dañuy jàng bu ñu wàccee dem ci géej gi fekk ñoom baa booy dee foofu di fooy ay bëre ay ñoom Mathieu Pereira ñoom Ousa ay Lato ay Yaram Gueye ñooñu ñoo daan nekk ci géej gi nekk xale di contact ñun boobu ay duñ ay mbër dañuy wàcc rek comme suñu ay grand frère lañu Ousa buy dem rek ma topp ko. ci laa gis Moussa Dioum ci lañ découvert doon bëri nag maa ngi ñoom ñuy foyee ay bëri bëri yu métti ci lañu teel ràññee foofu ci parcelle nag quoi mu nekkoon nag ku yàlla may ci bari nag wax dëgg yàlla ku yàlla mayoon ci bëri nag ku mën a bëri lool lool lool lool lool lool sax nag waaw lool nag. lan moo la gën a marqué ci moom. bon ma li wax ñëpp laa wax rek mooy dafa yëg na nit Moussa Dioum ku yëg nit la wax dëgg yàlla ku bari jàmm la aussi tamit loolu moom marqué na ma trop ci moom wax dëgg yàlla waaw. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf Baye Balla. tey ñu ñëw fii fekk la fii ci parcelle ci dëju Moussa Dioum sa digganteeg Moussa Dioum. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi siyaar Sénégal yëpp monde entier yëpp waaw musaa Dioum moom mm, man maa deele bu ma yóbboo ne man maa deele parce que tey Moussa maanaam dañu dund loo xamante ni mosuma ko dund ak nit ci làmb ànd nañu heure bu nekk. ànd nañu jour bu nekk samay bés ñoo ko doon ànd ay bésam tamit ñoo ko doon ànd leer na Papa Sow xam nañu maak Moussa bu baax a baax da doon fanaan sama kër dafa doon am deux semaine sama kër man tamit dama doon am këram deux semaines ngir di ko jàppale ci combat mu may jàppale ci combat mu nekk nit ku baax maanaam bésam sa bés da koy moo koy gënal bésam téeméeri junni yoon mosuma gis ku mu tooñ mosuma gis ku ne Moussa def na ma nangam mosuma gis kenn ku mu xulool mu doon nitu kese waaye liñ naan nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam te yàlla na moom bu xesee soxla moom ku soxla da ngay ñàkk kenn mënul xëccoo ak moom kenn kenn kenn li sëñ Sam mu mag bi doon wax rek ne xaw ma kañ la mais day béttee nañ koo waajal day béttee fu mu la fekk da ngay dem kon dañuy wax rek ne yàlla na ko yàlla xaar aljana te ñun ñi nga xam ne demaguñu tamit yal nañu yal nañu yàlla yéex a yóbbu moom tamit yal na ko yàlla yóbbu jant jante firdawsi mais vraiment vraiment Moussa daal euh, kii na marqué na ma drop daal barke alxuraan hmm, marqué na ma trop hmm, jaajëf. nagam sant yàlla baaxal alhamdulilah. tey ñu fekk la fii ci parcelle. ci décès bi nga xamante ni moom mooy Moussa Dioum nekk loo xamante ne dafa bette nekk loo xamante ni dafa bett ax lu làmb bett doomu yi bett ay xaritam bokk bett ay mbokkam ah lan nga nu mën a wax ci Moussa Dioum. billaahi bàyyi bala di ko ñaanal yal na ko yàlla xara ajana dafa mbette quoi man musuma xaal yëg feebaram. billaay wallaay mosuma xalaat ne sax Moussa feebar na mais nag même pas un mois rek doon diggante téléphone dama am lu ma estati benn yére mu ne jox ma bii doon doon diggante téléphone nag lu bëree bëri mais man gëj naa ko gis nag mais mosuma yaakaar feebaram. si guddi bi bi ma ko déggee ci bi dama mel ni ku bii gëpp nelaw ma ndax tiit parce que mu xalaatuma ko woon yaakaaruma ko woon métti na trop Baye Balla yal na ko yàlla xaar àjjana. sa digganteeg Moussa Dioum man ma xarit parcelle mbooloo laa nekkoon moo ma tàggat fii parcelle mbooloo ma ma ma fii nekkoon waaw sama kobaay yu bëri moo ma doon ànd ah waaw reefan la ñu mais dama nekkoon écrit ba bawol ma ñëw toxu si Grand Yoff mu ne ma comme ni gaa yi Grand Yoff da nga ma jege ñëw sama écrit gaal mën na ma seere bi ma nekkee par seen mbooloo boobu laa doon gën di entraîner parce que boobu dama doon taxaw di ma entraîner loo di ma jàppale combat bu ma am moo ma yóbbu billaahi wallaahi taala ba pare Yaxu Daal nit ku baax ba ba léegi combat bu ma am damay woo conseil ma bilaay walaay. sama combat bu mujj bi Adama Diouf rek dafa ñëw ba lamb jeex. commencé ma bilaay. nit ku baax la. lan moo la gën a marqué ci moom. comme li ñëpp wax moom fu mu nekk rek kaf reetaan xam nga man boo bëggee sax may bari kaf bari reetaan ci ñoom laa ko jëlee bi nekkee passé mbooloo ambiance bëggee fecc kaf loolu rek la xamoon. yàlla na ko yàlla xajal ku mën a fecc mën a bëre kenn daq koo bëre billaahi boo ko fekk contact bu am naan mais lii mbaa jam la bu feccee nga waaru mais nag yàlla mooy may sax ci lam mais bën ba daq koo bëre bën ba daq koo ambiance yal na ko yàlla xayma jàll. àdduna bi dafa jeex ba pare ban appel nga ban message ngay lancé. dama tiit dama tiit bàyyi bala. bilaahi dama tiit parce que day mel ni day tiital kat xëy rek ñu dee na dama ragal léegi dama tiita tiit dem ba téeméer ma dama ragal dee fii mu toll maanaam du ma doon def ci baax dinaa ko yokk bilaahi. dama tiit de. billaahi walaahi tiit naa trop. parce que dee dafa miti. dee dafa miti. takk la yoor la tey. guddi gu jëkk ci bameel. tiit naa. dootuma def dara lu lu lu neexul yàlla ba tiit naa. te nag ñëpp de daw ci yàlla parce que ku ne am bés bi waay dafa miti billaahi ndeysaan ñu ngi lay jaajëf jërëjëf maa lay fay Modou waaw di leen ko jaar rek di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yaram te xara ko aljana Moussa moom suñu Moussa la ñun ñëpp mbokk la am di jàmm la ku baax la looloo waral ñu teew fi pour ñaanal ko yàlla yàlla yaram ko xara ko aljana waaw loolu ko waaw te yàlla Moussa Gueye li ñu leen mën a wax ci moom bari na waaw xam nga bet nañu dem na dem na nañ ko ñaanal yàlla quoi loolu la res nag nañu bàyyi bari joon suñu kilifa ñun ñëpp ci bawol xam nga mu mot li daal wax yi dina diis trop nag mais nañ bàyyi mu mot li daal. mais ak euh, Moussa Dioum. lépp la woon lépp. jërbaat la suñu kër lépp la woon mbokk la daal wax dëgg yàlla. vraiment koy jaal àdduna bi yëpp di ko jaal moom du làmm di ko jàll ay supporteurs am ay fans am ak yëpp xamoo di ko ñaanal yàlla daal yal na ko yàlla yërëm xere ko aljana bi jaay Seydina Mohamed loolu daal la am lu ma ci wax wax dëgg yàlla. ok yan kàddu moom moo la gën ki nga xamante ne moom moo di comme ni ko ñëpp yëgee laa ko yëgee rek waaw mu doon bés bu metti bés boo xam ne ne xëy na ñu waa moom dootuñu ko fàtte quoi wax dëgg yàlla mm-hmm. Ah, li des daal bàyyi leen ba rajoon mu egg li quoi franchement. jërëjëf mais gis nañ sa open press ak euh, xew la rek ñoom ñëpp day ñëw tax ci rëpp du ci du ci am xaar yàlla kenn waaw moom noonu la mel maanaam ñëpp la yemale daal wax dëgg yàlla yéen a ñëpp jàmm man loolu laa xam ci moom. wax dëgg yàlla dama koy ñaanal daal yal na ko yàlla yaram quoi wax dëgg yàlla. fii kër Moussa Dioum ki ma jàkkaarloog nag sunu baay la daanaka mooy baayu xale yi. ndax turandoo la ci Modou maa ngi lay nuyu papa. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay fay nuyoo. Mhm. tey ñu ñëw fekk la fii ah. mën nga nu wax euh, kan mooy Moussa Dioum. Euh, kañ wax ci moom yomb na nag euh, li ñu xam ci moom xale bu yaru. Mhm. waaw xale bu neex a dëkkal. Mhm. ku disponible. di nag un gars très intègre. ku am fayda ci boppam. wax dëgg yàlla demul dikkul ñu yar ko fii mu màggee fi def fi enfance am yëpp defal mbégte parcelle bëccëg bu ne nag mu defal nu ko fii ci mbégte wax dëgg yàlla. loolu la lool lan xam ci moom nag yar ak teggin fonk mag ñi fonk xale yi. di foddi ree loolu lan xam si moom wax dëgg yàlla di xale bu yaru nag. waa xale bu bu baax a baax a baax amul histoire oyof ba pare simple. nekk nag un grand rassembleur. Mm. ndax moom day dajale ñëpp xale yi. di fodere guddi fi lay toog. dajale ñëpp su toogee animé ak ay rakkam. dégg naa fu mu toog kenn du kenn du di nit ku disponible daal vraiment ku nu manqué nag wax dëgg yàlla. di doom ju nu amaloon njariñ aussi. Mm. parce que lu ma bokk na ko waa quartier bi généreux. waaw loolu xam nañ ko ci moom wax dëgg yàlla. boo gisee ma dëkk la micro bi dama dañ ma dañ ma dee na ma demal ci paa toog moom mooy turandoo Modou moom la ñu tuddee Modou li mu la mën a wax ci xale yi ci biir parcelle bari na moo tax ma laaj. parce que parcelle nag ñun dañu fi yàgg xam nga dañu bokk ci fondateur yi parcelles yi. Mm-hmm. dëkk xale yi am sunuy mag yu nu fi jiitu. parce que papay Modou moom sama sama mag la sama nit ku baax la. Mm. parce que ñoo bokkoon benn service. Mm. au de Dakar. Mm. du dëgg. ma nekk euh, seen chef de département. mu nekk euh, ku disponible di góor goo xam ne ku ñeme liggéey. ku dëggu tamit. loolu la. muy moom di bàyyu Balla Gaye ñoo ñëpp ñoo daan nekk au port ensemble. ma yore fa benn département ngoon gu jot foofu la ñuy daje. papay Modou Lo nag moom nekkoon ci sama département di un grand di bu mag. gis nga ba ba muy màggat day yëngu moom. moom faalewul lu xale yi am. liggéeyam rek la fonk. nekk taalibe cheikh bu dëggu nag. waa gëm diine. am fayda ci boppam yar ay doomam. def ci ñoom fayda gis nga fayda ji Modou Lo am yëpp ci moom la ko jëlee ndax daf ko yar ndax moom doomam du traîner su xëyee suba du fekk benn doomam taxawaalu loolu moo am foofu am fii ci ñoom Moussa Moussa yi baayam noonu la mel parce que man je suis de Khombol ñoom ils sont de Réfon j'ai fait la classe avec son père ak turandoom maa ngi koy nettali ñii léegi turandoom Moussa Dioum nous avons fait l'école ensemble noo jàngandoo waaw un gars très intelligent. baayam sama wëllëre la sama wëllëre la ñoo dëkk suñu ñaari kër yee taxalo sama kër moo nekk nii à côté. nga xam ne xam naa leen. maa leen yar sama kër a ngi nii. man maay borom këru Mati cam Dogo fii ci koñ bi. xam ko di notable fii lu ma leen fi wax rek loolu la. du dëkk ñii di sunuy dëkkandoo la xam nañ li ma wax kii jaxate la moo dëkk ak Moussa nii di moom it euh, xale bu baax di ku disponible waaw ñuy xale yu yu am njariñ daal ci quartier bi mm-hmm. ñu leen di ñaanal yàlla ñoom ñi fi desit yàlla dafa leen jàmm Moussa mi dem yàlla xare ko àjjana yàlla na ko sëñ Tuubaa ñu seetlu léegi ci jamono ji maanaam valeur yi yàqu nañu jikko yi yàqu nañu te dee gi bari na te gaaw na boo amoon message booy lancé jeunesse bi man message lay doon. bi daal li leen di lancer nungoo liggéey jaamu yàlla. képp ku ko ci def di nga mucc. boo gisee mag respecté ko. tey làmb poos di joxe baax na ci nag du dëgg. loolu la nit bu la yàlla mayee wërsëg boo dëkkee cib koñ. da nga fay def lu baax. Moussa moom nekkoon na ci loolu. sama waa ji ma dendal sant jaxate loolu la fi nekk. bu koor jotee dinañ bëggal mag ñi. bëggal jumaa ji bëggal pénc mi te loolu c'est l'essentiel loolu ku koy def di nga yàgg ci àddina bi waaw mais mag mu wax nga football ko ak trombe de pente ko ku ko def sa la du dëgg waaw loolu rek la du dëgg waaw ñoo ngi leen di jaajëfal yéen it ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen it yàlla yàggal leen fi voilà merci beaucoup waaw ñu ngi lay fay tey ñu fekk la fii euh, ci parcelle sa diggante ak Moussa ndeysaan dafa nekk lu yaatu. billaay muy borom bu baax. xolam rafet lool. mën naa wax ni tey man suma ma bëggee làmb yàlla moom moo tax. bak sëñ Touba. dañ doon ñëw biir këram fi ñun ñëpp. ñun boo yëpp yaakaar moo ñu yar. waaw amul lu deful suñu. def na suñu lu ne. fii lañ doon ñëw mu togg ay añ yu bari pour rekk ñun. billaahi xolam dara ne. daan boole daal. billaahi. daf ñu boole ñun ñëpp ëmbuñu. mën ngeen wax kan mooy Moussa Dioum dëgg-dëgg. mooy Moussa moom nekk na koo xamante ne moom nit ku oyof la. ku xam àddina la tamit. waaw fële mu la ñu ngi ñaan suñu borom jégal ko ay baaxaram xaaree ko arjane fii daw si arjane yu kawe xam ne nag ku baax dem na ko waa xol moo tooy ba ma ko yégee dama li ma li ma li ma jàppoon yëpp dama ko bàyyi waaw ma xam ne am nañ tiis am nañ naqar tamit quoi mais ku li nafsin zaay xatin mawti mm. baxeen bu ñam dund rek dina ñam dee mm. kan mooy Moussa Dioum waaw parce que yàgg nañ maak moom mm. waaw yàgg nañ trop kii sax xam na ci dara nga ci Moussa Dioum waaw Moussa Youm day wax dëgg yàlla ñoo bokk dëkk Bawol ba pare wëlbati mbokk bu jege boo xam ne mosuma ko xam sax euh, ñëw te loolu lépp moom moo ko waral parce que moo ko souligné waaw parce que moom écurie Pikine la nekkoon man ma nekkoon écurie Fass yàlla dogal li mu ci man cofeel ma am ci moom moo ma parcelle fii waaw depuis maa ngi fi depuis 2002. moo fenn fii maa ngi moom ñuy ànd di dóora ko jóg waaw mun a mën a dem foofu lijjanti sun écrit maa moom rek ñoo taxawal écrit bi. li ma ci xam am na ñoo xam ne ni duñ ko xam. parce que maa moom yàgg nañu. waaw ñoo doon bokk di fanaan guddi ak bëccëg. wax dëgg yàlla muy nit koo xam ne ku baax la. waaw du mer du tànqam lu kenn. et puis am yar la ak ak i teggin ci dëkkandoom. ak ku mu mënta xam parce que foo gisee rek moom kii bi mooy jëkk a feeñ ci moom. waaw bëñam mooy jëkk a ci moom te loolu mu lay woon noonu moo nekk ci moom. waaw joomam nag ak ak ak ngorom moo tax mu feebar ba nekk nit ñi nit ñi xamuñu ko. waaw jom ngor. waaw waaw parce que waaw parce que man bu ma bu ma bëree rek may ma confiance moo tax. waaye moom fu muy bëree fu ma gisee sama rek macha allah waaw moom rek moom mën na wax parcelle lu ma dégg waaw moom ak mbay Diouf ma lay lu ma dégg mais maa mag mais teewut ciir bi ma war a am ci moom dama ko jox cëkk ma delloo ko waaw parce ku nekk tey jii bu ma defee dara wala keneen nii man moom rek la may booleel mais du ma booleel keneen wax dëgg yàlla nit la woon koo xam ni ci man fi nekkoon maa moom maa ngi moom dong ak yàlla fa nekk. waaw jërëjëf waaw parce que maa ngi koy maa ngi koy jaale nag axlu làmb yëpp di ko jaale suñu waa kër ñëpp waaw di wax ne métti na nag mais yàlla moo na ko joxoon moo ko jëlaat ñu dal di koy muñ rek daa koy yal na ko yàlla xare àjjana ak ñam fa fekk ñu fa fekk ñëpp. billaay moo ma jàngal bëre. li ne ci man yëpp moo ko def ci man. Mhm. billaahi wallaahi taalaay kon affaire yi mel na ni rek man maa ñàkk. Mhm. billaahi parce que démb bi ma ko yëgee. Mhm. waaw xaw naa kii quoi. diis na ci man loolu. parce que man ak moom gëj nañ gisee man na deux mois. fii lañ taxaw ci angle bi. ma ne ko mbër temps yi dama la gëj a gis affaire yooyu noonu. mu ne ma waaye man de fan yii de taab laa am ci tànk nii. yow xam nga ne man saa taab def ma yeb affaire yooyu noonu. ci la ma ko wanee affaire yooyu noonu mais xalaatuma woon ni feebar bi àgg na foofu quoi. billaay wallaay taalaay. nii ak jour bi may woo naan ma abal ma sa taabulu. kuusaas. parce que temps yi mënu ma dem saal. damay bëgg su ma may yéeg ci kaw di di kuuse. boobu lañ gëj a déggante. ba nii démb ñu woo ma ne ma Moussa Diouf na liggéey. mais nag xam rek. mënuñu ci dara quoi. yàlla moom lu mu def ci jaam rek dafa gën. dañ koy ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana. ak mboolem jullit mu dëddu. wax dëgg yàlla mu daan affaire yi. ñëw fii Père Sagna ngi nii toog Papa Mor Diouf a ngi toog. mu nekk parcelle mbooloo. xale parcelle yëpp. yëpp ci moom la xool. moo tax ñu tax ñu ngi ñii ma dégg. ngir fii la dëkk. Moussa jub na. yaru na. joxoon na cër. am na diine fonk na waajuram. yàlla na ko sëñ Bamba teeru. rafet nañ si njot ndax seetu seetu sañ seetu seetu seetu sañ sooy bu moo moo ko jullee waaw ci lu wér doomu sañ am sa doomu sañ am saatu mbàkke mu sañ sooy bu moo ko jullee hmm, ah, ah. hmm. hmm. kon rafet nañ si njot yàlla ko yàlla xaaraa jëna jërë ngeen jëf